sant yàlla bu baax euh, ci à côté de monsieur le préfet du département euh, di ñëw tey teewi fii Njaareem euh, di tase ak groupement de femmes acteurs de développement local surtout les maires déggu nañ leen bu baax expliqué lañu lu ñu doon xaar ci ADL te lu ñu bëgg a tamit ADL mel donc dégg dégg nañ leen bu baax comprendre nañ seen préoccupation dinañ ko gën jël en compte pour que année yii di ñëw ADL mun a gën a defaraat gën a jël en compte pour eh, besoin population yi eh, gën a impacté ci seen euh, jafe-jafe yi donc loolu mooy suñu tànk tey euh, lii complément bureau la parce que soo xoolee dossiers yi da ngay gis mais pour soo ñëwee sur le terrain maanaam nga ñëw nga gis nit ñi nga saafante ak ñoom nga waxtaanam gën a diisoo ak ñoom soo dellowaatee xëy na am na yoo xam ne dañ ko mën a gën a defaraat donc loolu mooy objectif principal ci tournée bi te dinañ continuer dem Kaolack suba continuer dem Tambacounda Sédhiou ba Kolda euh, gën a complété lu ñu wax tey euh, maanaam ADL bu bees adele boo xam ne ubbeeku na ñaan sénégalais yëpp ñu ñëw seet si ñu wala ñun su ñu amee jot ñu dem seet si leen créer ay partenariat dynamique pour que Sénégal dem ci kanam joxoon nañ quelque machine bariwul naa 15 la mais yooyu yëpp exemple la rek di ne ñii nag dans le développement local ñu ñëw li ADL def ñu jàppale ñu wala ñu créer des synergies gën dooleel population yi génn leen dimbali mu dem ci kanam waaw. bon perspective yi maanaam mooy gën a jege population bi lu may wax ni mooy régi de quartier ay association liggéey ak ñoom jafe-jafe askan wi ci quartier yi. gën jël en compte wàññi wàññi difficulté yi donc loolu bu euh, bokk na ci suñu suñu axe stratégique yi ci année année yi à venir quoi. yu bëri yu bëri mais convention yi tamit dinañ ko xool def ay plan d'action parce que loolu mooy déclinaison bi plan d'action yi ñoo lay permettre nga mun a euh, partenariat ñu am njëriñ donc loolu tamit ñu ngi ci ñu ngi ci liggéey te comprendre nañ lañ mooy utilité am lan lañ war a positionner partenariat bu nekk am na fi nga war a taaw pour volet bu nekk. nga mun a émailler besoin sénégalais à travers le différents coins du du Sénégal waaw financement de ànd ak formation wala encadrement loolu tamit am nañu ay partenaires comme li nga ko waxee euh, di gën a jàppale jigéen yi surtout ak jeunes yi donc ñu gën a kii par exemple soo xoolee jeunes Sénégal yi tey lu ñuy wax inclusion numérique euh, start-up yooyu yëpp bëgg nañ ko donc ADEL dina jël en compte aspect yooyu yëpp gën leen dimbali gën leen accompagner. Maam Diarra Ndour laa tudd di représenter association 2A2D euh, les acteurs pour le développement de la région de Diourbel ñu ngi am contentement bu baax ci tey li ñu ñu jox li ñu jox réy na trop ci ñun parce que lii euh, jigéen ñi dañ ko soxla association yi dañ ko soxla vraiment pas bii ñu def j'espère que dina am yeneen yu ñëw yoo xam ne dina gën a suqali développement locale bi parce ñun ñëpp ci la ñu wëy dañ ñu woo si liggéey donc dinañ leen ci wuyu te xam naa ne machine bii ñu ñu jox on va en faire bon usage incha allah di kontaan bu baax ci monsieur le directeur ci déplacement am di nuyuwaale aussi monsieur le ministre di sargal euh, notre préfet allez merci beaucoup. tey dañu fi teew ci ndaje bi ci turu gouverneur ndaxte kat euh, ndaje bi atelier régional la. ñu ànd ci ak euh, agence de développement locale mu ñëw di jàppale li nga xamante ne nii ay initiative la muy loo xamante ni jéem la yoo xamante ni dañ koy jéem ci wàllu économie di dimbali di développer suñuy localité muy terri yi ñu yor nii fii loolu ADL ñëw tey di ko def mais bi mu ñëwee dañ ci ànd ak acteurs yi fi nekk yëpp loolu nekk prétexte si ñun ñu mën a waxtaan ak acteurs yi fi nekk ci région bi wax leen ne kat jot na jurbel jaay li mu am ci lu gën a rafet muy opportunité yi nga xamante ne ni mën na ko wane ci biti boo xamante ne bu ñu ko wanee ci biti dina tax investisseurs yi ñëpp ñëw fii investir biir Diourbel ndaxte Diourbel kat bari na lu mën a jaay ku xool Diourbel fi mu féete ci Sénégal nga xam ne jurbel léegi doo def lu mat une heure de temps ak Ndakaaru Touba mi ngi jege Diourbel Fatick jege Diourbel Louga jege Diourbel Kaolack jege Diourbel te Thiès a ngi nii à côté kon tey ku ñëw investir Diourbel lépp loo doon ut Dakar di nga ko am fii te maire yi ñu ngi nii toog ñoom ñëpp pare nañ pour accompagner les investisseurs bu ñu ñëwee fii dinañ defal délibération defal leen ñu am suuf soo xam te ni mën nañ fa samp seeni usine wala def fa lépp loo xamante ni mën na développer ab dëkk ñu ne nag jot na ñu taxawal loo xamante ne ni mooy table ronde des bailleurs muy bailleurs yëpp bu ñu dajee ñi mel ni ADL ñi mel ni DER ak ñeneen ak ñeneen ANPEJ ak ñeneen ñu yëngu ci loolu muy partenaires technique et financiers yi muy acteurs de développement yi fi nekk muy collectivités territoriales yi ñëpp bu ñu toogee waxtaan di leen xool li nga xamante mën na développer Diourbel muy opportunité yooyu nga xam te bu buñ ci taxawee rek incha allah région bi dina dem ci kanam.